mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaa ci seen site d'information métro Dakar tey jeudi 18 juin 2020 ñu leen di indil seen actualité du jour li ci gën a fës di libération Cheikh Yérim Seck journaliste bi daal dinañ koy bàyyi mu dellu fee ca njabootam mais toujours mi ngi nekk sous contrôle judiciaire lépp lu ci am dinañ leen ko indi la reprise des classes jàpp nañ date bi nga xam ne la xale yi di dellu fa li nga xam ne moom mooy bërëbu jàngukaay loolu aussi dinañ leen ko yaatal ci seen biir actualité du jour daal nga xam ne xew na fi mu am ci seen site d'information ñu daal di koy doore ak final bu coupe d'Italie doon opposé ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Juventus de Turin ak ñi leen di waa Napoli ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bii di bu Kalidou Koulibaly di international sénégalais bi ñoom ñoo daal di sax remporté ndable ci ginnaaw match bu métti dañoo dem ba fi nga xam ni moom mooy séance de tiro bi ci la waa Napoli daal di gagné li nga xam ni moom mooy match bi euh, équipe bu Cristiano Ronaldo nag ñuy wax ñi dañoo daal di perte li nga xam ni moom mooy titre bu coupe d'Italie ginnaaw 13 yoo xam ne daal dinañ koy jël waa Napoli ñoom ñi ngi seen sixième titre bu coupe d'Italie lu tiis moom moo daal di xew fa li nga xam ni moom mooy cité Damel foofu nag benn xale bu góor bu âgé de 14 ans moom moo daal di jógee quatrième étage mu daanoo nag dafa dal di ñàkk bakkanam ci saasi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ñoom ñoo daal di joxe information bi mais ñi ngi wax ni li nga xam ne moom moo waral la boobu ñoom mënuñu fexe ba xam ko maanaam kenn xamagul lan waral xale bu góor bi daal di jógee quatrième étage daal di daan lu ci mënti am nag ki nga xam ne moom mooy xale bu góor bi âgé de 14 ans moom dafa daal di ñàkk bakkanam ci saasi bi mu daanoo Aliou Sall di frère bu président Macky Sall ginnaw biñu ko testé positif ci feebar bi nga xamné mom moy Covid 19 mu tuddu ko ay fan fële nga xamné mom moy hôpital Dalal jam. mom daal dinay wax ni daal dinay wér daal dinay def annonce bi ci fi nga xamné mom moy réseaux sociaux yi mom daal dinay bind ben note boo xam ne mi ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañ ko ci feebaram bi lu ci mel ni famille am ak ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam mais mi a remercier ne ñoom ñooy personnel médical bu hôpital Dalal Jàmm moom mi ngi moom mooy coronavirus mi ngi be beral cant ki nga xam ne moom mooy professeur Moussa Seydi mi ngi wax ni moom ménagé wul benn effort ngir daal di koy génnee ci feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19 mi ngi euh, réconforté ñi nga xam ne ñoom ñooy ay partisans am di leen wax ni moom daal di nay wér maanaam daal dinay génn bu baax ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus nga xam ne ñu ñu bëri sax dañu doon laam-laamee ndax am na ko wala amu ko mais moom daal dinay wax ne daal dinay wér bu baax ci feebar bi nga xam ne moom mooy covid 19 ginnaaw weer yu bëri yoo xam ne daal dinañ koy toog seen kër yi bañ a dem fële nga xam ne moom mooy bërëbu jàngukaay ñii di xale yi dinañ nga xam ne moom mooy bërëbu jàngukaay maanaam école yi ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy dem nag mooy ñi nekk classe examen maanaam ñi nekk CM2 troisième ak nga xam ne moom mooy terminal loolu nag di benn décision boo xam ne dañu ko jël fële nga xam ne moom mooy conseil des ministres date bi ñu joxe moom mooy datu juin donc ñu a xam ne le 25 juin ñii di xale yi nga xam ne dañoo nekk en classe d'examen dinañ dellu fële nga xam ne moom mooy daara yi ngir daal di jàngee you. ñu wax ci promoteur bii di Aziz Ndiaye moom nag daal dinay def annonce bu rëy fi nga xam ne moom mooy émission Bantambam moom daal dinay wax ni daal dinay bàyyi lépp li nga xam ne am na ci wàllu làmb maanaam ci li nga xam ne moom mooy làmb ji mi ngi ko annoncé ci émission Bantamba moom mi ngi wax ni ginnaaw benn digal boo xam ne jot na ko ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes nekk sëriñam daal di koy wax ni mu bàyyi lamb moom nee na wax na ko ko waxaat ko ko loolu moo tax mu bàyyi li nga xam ne moom moo jëm ci làmb ji moom mi ngi wax ni dootul accompagner benn mbar dootul wàcc ci fi nga xam ne moom mooy enceinte làmb ji di def ay préparation mystique mu doon ci benn mbër même bu dee Balla gay 2 la nga xam ne frère am la mi ngi wax aussi ci li nga xam ni moom mooy ay relation ak Balla gay 2 mi ngi wax ni Balla gay frère am la te frère am lay mës doon mais moom dootul wàcc ci li nga xam ne moom mooy enceinte làmb ji déggu nga ay mbër loolu nag nekk benn décision boo xam ne kii di Aziz Ndiaye moom moo ko jël dal di koy annoncé démb ci émission bu Bantamba leneen lu tiis lu nga xam ne moom mooy Louga fofu nak ben agence Senelec mom la courant daal di maas ba mu daal di ñak bakanam lolou nak nek ben bir mu doy war mu xew fele nga xamni mom moy mooy Louga ci ay environ yu 20 h agence Senelec bi mom dafa ñewon ngir daal di rallier li nga xamni mom moy mooy village bu kalasan jaaya ci réseau Senelec bi nga xamni mom mo nek fofu foofu bi muy daal di rallier loolu ci la daal di def li nga xamni mom moy accident manam daal di daal di def fausse circuit bi mu defee fausse circuit nak ci la daal di maas bopam courant bi daal di koy maas mu daal di ñak bakanam ci saa si loolu nekk lu doy war lo xamni xewna fele nga xam xam ne moom mooy Louga ci village bu ñu naan Kalasan Ndiaye. voilà mbokk internet yi loolu leen leen indi loon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci information yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer de topp seen site d'information métro Dakar ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ak yeneen actualité